dem bay laaj ana luy soloom tey ci euh, réew mi ak ni muy doxee assemblée googu xam ngeen ni jamono yi ñu weesu yépp ñu ngi tudd ñenn ci ay député euh, ci ay euh, mbir yoo xam ni naka sudul noonu genre scandale loolu nag ñàkkul njeexital ci doxinu assemblée boobu mais dinañu jéem a dem démb xool assemblée bi naka la doon doxee lan moo xew si diggante bi tey ba tax ñuy gis yenn situation yi doyen Pape Amadou Fall di journaliste analyste politique lañ ñuy dalal ci waxtaan bi doyen ñu ngi lay nuyu am mbégte lool euh, waxtaan ak yow ci lii ma fi junjut léegi. Euh, alhamdulilahi rabil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim maa ngi lay fay euh, soxna si du nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy seeni auditeur yëpp di leen ziar. doyen ni ma ko waxee assemblée nationale institution la bu musa bokk ci ni Sénégal di doxee euh, justement démb mun nga ñu ñëwal ci valeur ak li assemblée doon représenté euh, ci Sénégal ci wàllu institution mais aussi ci taxawaay bi nga xam ne ñëkk sekkoon euh, nekkoon ci boobu assemblée amoon nañu ko. jërëjëf xam nga bu ñu takkee ne. am nañu suñu indépendance 4 avril 1960 mu doon li ñuy tuddee réew mi yeeweeku fireeku génn ci loxo yi ñi nga xam ne ñoom ñooy tubaab yi euh, la ko jiitu woon mooy ci ba ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy France lii jëm ci li nga xam ne moom mooy maire ak di jëm ci wàllu nga xam ne moom mooy député dafa jiitu li nga xam ne moom mooy Sénégal am indépendance ndax tubaab yi li ñuy wax ay député de l'AEF euh, dañ leen daan jox li nga xam ne moom mooy cër maanaam nit ñu ñuul ñi nga xam ne ñoom la ñu jiite woon yilifoon leen euh, ci ay dëkk yu mel ni Sénégal Côte d'Ivoire boo demee fu mel ni Benin ci jamono Haute-Volta nga xam ne moom mooy Burkina Faso ak dëkk gox-goxaan yooyu dañ fa daan ràññee ay doomu aadama ne leen nag ñii war nañoo mën a yore baatu askan wi di toog ak ñi nga xam ne ñoom ñooy tubaab yi fa nga xam ne fa la ñuy dogale fa la ñuy jëlee li nga xam ne moom mooy loi yi assemblée nationale dinañ ci dellu siwaat loolu lañ ko tëggee muy woote li nga xam ne moom mooy ay loi député bi nga xam ne moom la ñu jëkk fal ci Sénégal Blaise Diagne la woom député la woon damay tënk ndax buñ ko toppee dafay gudd mhm. waaye dinañ wax ni fal nañu ku mel ki nga xam ne moom mooy Léopold Sédar Senghor ba mu mujjee doon président de la République du Sénégal ku mel euh, ki nga xam ne moom mooy président lamin Guèye avocat la woon doonoon ku jegeñ lool Léopold Sédar Senghor moom moo jëkk doon président assemblée nationale bu Sénégal donc paluk li nga xam ne moom mooy euh, député dafa jiitu li nga xam ne moom mooy indépendance su li nga xam ne moom mooy suñu réew wàllu wàllu maire yi bis booy def émission ñu ci bu jëm ci wàllu maire yi loolu dinañ ci waxaat leneen waaye li am solo mhm. mooy assemblée nationale du Sénégal ba nga xamee ni tëgg nañ ko mille neuf cent soixante hmm. ndax boo amee indépendance da ngay daal di am li nga xam ne moom mooy sa constitution hmm. te constitution dafa am ñoo nga xam ne ñoom ñoo la koy tëggal di ko doxal di ko saytu mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee député yi hmm. kon indépendance de ànd ak li nga xam ne moom mooy taxawaayu député waaw ñu fal leen ci la nga xam ne moom mooy jamono la baal ma nag xel mi fatt na mhm. ndax munu ma laa wax ba ñu amee indépendance tey mhm. loolu fatt na suma xel mhm. euh, ñaata député député exactement moom la ñu faloon waaye mun nañ wax ni Sénégal gisoon na ci boppam ci jamono yooyu nañu toll woon nga xam ne dañ naan ay ñetti millions yi doomu aadama la ñu woon waaye gox goxaat ba gox goxaat bu ne dafa nga xam ne waroon nañ fa war a mën a tànn ci li nga xam ne moom mooy tànnin defoon nañ ko na nga xam ne moom lañ ko waree. ñooñu nag nga xam ne ñoom ñoo jëkk a falu ci li nga xam ne moom mooy assemblée nationale bu Sénégal ki nga xam ne moom mooy euh, euh, euh, Lamine Gueye. jiite woon la nga xam ne moom mooy assemblée nationale ba te Lamine Gueye doonoon avocat bo nga xam ne bu xereñ ñoon la woon lool ci wàllu nga xam ne moom mooy àndam yoroon parti politique. comme Senghor moom it ni nga xam ne moom la ñu la yore woon parti politique. Mm-hmm. ndax lamin moom moo jiite woon parti bi nga xam ne moom lañ doon wax BDS. Mm-hmm. Senghor jiit li nga xam ne moom mooy SFIO. ñoom ñaar dañoo mujj a li nga xam ne moom mooy seen parti mm-hmm. moom mujj a parti bi nga xam ne moom la ñuy wax Union Progressiste Sénégalaise UPS. waaw loolu loolu euh, ci li nga xam ne moom mooy euh, taarixu Sénégal Euh, loolu laa la mën a wax ci li nga xam ne moom mooy taxawaay nga xam ne kon ñooñu doomu aadama yooyu nga xam ne ñoom lañu ñu jëkkoon fal hmm. ñu toog ca assemblée nationale ñoom dañoo yoroon li nga xam ne moom mooy kaddu askan wi hmm. ràññe woon nañ leen te doonoon na ñoo xam ne ñu ñu fonkoon nañ leen te xam leen hmm. alors tey lan moo wutale député yi ak yooya eh, Fatou bi na euh, gis nga soo nee diw dafa yore baatu askan wi. Mhm. askan wi moom wenn la. waaw waaye nit ñi nga xam ne ñoom la ñuy tànn ci askan wi. Mhm. ñan la. Euh, dafa am koo xam ni danaan man de lii nga xam ni samay nawle mhm. jox nañ ma ko ci wàll wi nga xam ne moom mooy gëdd lu tax ndax xam nañ ma ci li nga xam ne moom mooy sama taxawaayu gox ndax ràññee nañ ma sama diggante ak li nga xam ne moom mooy sama diggante ak nit ñi du ñu wax ne doomi buur la woon de hmm. du ñu wax ne doomi garmi la woon duñu wax ni ku ku amoon euh, alal la wala ko amoon ndombo waaye day dafay doon ko xam ni dañ ko ràññee ci li nga xam ne moom mooy soxlay nit ñi ndax ñoom ñëpp dañoo soqe woon ci li nga xam soqe ko woon ci li nga xam ne moom mooy ay parti politique te jamono yooyee yore baat ci li nga xam ne moom mooy parti politique dafay doon ko nga xam ne gox-goxaan ba nga xam ne fa la ko nit ñi ñoom ñoo ko li nga xam ne moom mooy cër bi hmm. naam ca la nga xam ne moom mooy suñu indépendance xeexee doon na métti lool de ci diggante li nga xam ne moom mooy parti politique yi bu ñu daan ut sax ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy député euh, xeex ye daan na metti lool ci diggante li nga xam ne moom mooy militant yi cër buñ leen ko joxee fa ñuy dem di fa toog daf leen di jaral li nga xam ne moom mooy seen bakkan ci wàll bi nga xam ne moom mooy seen nekkin ak li nga xam ne moom mooy seen taxawaay ngir sigil li nga xam ne moom mooy askan wi ngir jariñ li nga xam ne moom mooy askan wi loolu moom moo doon seen combat fal nañ ma dinañ ma ci ràññee dinaa xar suma tànk tubay pour ñu ràññee ma ci li nga xam ne moom mooy sama taxawaay ngir sigil li nga xam ne moom mooy sama sama gox ndax it daan nañ li nga xam ne moom mooy askan wi ci wàllu nga xam ne moom seen taxawaay ak seen nekkin. Mhm. investiture itam ni ñu koy defee tey li ñu ko daan defee demba waaw xam nga xam nga xam nga foofa moo tax may la ñi ñu daan fal dañ daan bokk ci ay parti politique te mhm. booy dem ci li nga xam ne moom mooy suñu indépendance booba li jëm ci wàll bi nga xam ne moom mooy parti politique yi ñi nga xam ne tey ni la ñu euh, fese ni la ñu bare déedéet booba dañuy wax ba nga ah, xamee ni Senghor ak Lamine Gueye ànd nañu ci wàll wi nga xam ne moom mooy taxawaay ba former benn parti benn parti moom moo daan fal li nga xam ne moom mooy député yi muy Union progressiste sénégalaise booba parti moom moo daan fal te dafa am loo xam ne dafa amoon solo ci wàll wi nga xam ne moom mooy taxawaay bu ñu xasee ba joxoñ ba ni diw mi lay doon hmm. mooy li nga xam ne moom la ñuy wax la discipline du parti hmm. discipline du parti mooy maag fàccam hmm. ak ñeneen tax fal nañu li nga xam ne moom mooy taxawal nañu li nga xam ne moom mooy suñu parti ñu ànd ci li nga xam ne moom mooy tëggin bi tëggin wi dama koy indi ci li nga xam ne moom mooy philosophie bi li nga xam ne moom mooy bëgg-bëgg yi ñu mànkoo ca bu ñu demee ba ne dañuy fal ah gox goxaan bu nekk nag di nga gis ñoo nga xam ne dañuy wane li nga xam ne moom mooy seen bëgg-bëgg waaw mm-hmm. ah, dina am kon xam ne day jóg ne man de bëgg naa ñu fal ma député keneen ku jóg bëgg ne bëgg bëgg naa ñu fal ma député keneen ku jóg ne bëgg naa ñu fal ñu député mm-hmm. loolu moo daan indi xeexoo ba nga xam ne yenn saay daan na am. Mhm. ah oui oui oui loolu noonu la mës a demee. d'accord waaye nag bu ñu demee ba xës ba tànn kenn na ka nga xam ne kooku la ñu joxoñ ba jàpp ko bu ñu demee ba li nga xam ne moom mooy woote ba ñu fal ko. Mhm. ca assemblée nationale dañ naan le député du peuple. loolu la ñu waroon di far di dégg euh, saa su ne. Hmm. ci li nga xam ne moom mooy réewum Sénégal. Hmm. loolu laa ci mën a tënk ci fànn boobu. dem nañu nag bay dégg man député diw laa maanaam ka investir ka dugal ca list ba euh, ndax du problème bi foofa la tàmbalee. xam nga boo xamul sa bopp. Ah. fawu nga jaayu ci kenn. Hmm. boo xamul sa bopp. faabu nga jaayu ci kenn. député mënul doon. député diw waaw ci kàllaama sax mën nañ dégg ñu ni député parti sàngam waaw waaye député diw loolu moom mooy xamoo sa bopp parce que bu ñu la ko joxoñalee sax war nga ko mën a bañ parce que même bu fekkoon ne tey man maa fexe jox la jumtuwaay jox la lépp waaw jox la xaalis waaw utal la ay bunt ba ñu fal la assemblée nationale boo bis ba nga tegee sa tànk te fa nga xam ne moom mooy buntu assemblée nationale tegg nga tegg nga diw askan wi daal di taxaw ndax kooko la mu doon def ngir askan wi moom la ñu war a mën a séntu ne moom la ko doon defal fukki million ak juróom-benn sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo toog tey ñoom ñoo am ay député amul keneen. koo xam ne di la ci fay. ah waaw jox la ci oto jox la essence. Mhm. di la di di la faj di la fajal sa njaboot waaw. waaw booy tukki booy tukki am na euh, donc nit ni ñoo la fal waaye du diw moo la fal diw moo ma fal nag moom moo indi li nga xam ne moom mooy giraawalité yi mhm. ci li nga xam ne mooy moom mooy réew mi. Mhm. ak yeneen i jikko yoo xam ne it ka nga xam ne moom la ñu fal tey député wax dëgg fa yàlla. bu ñu ko xàmmee woon ràññee duñ ko mës jox li nga xam ne moom mooy ndombali. loolu daf ñuy indi ci laaj bi ñeel naka lañu ñu war a tànnee député bu weesoo xëy na aspect politique bi war na am ñàkkul benn enquête de moralité boo xam ne dañu koy def ba xam kii euh, xëy na euh, lii ak li ak lii euh, warees na kaa mën a jomba def ci li ñu ko xamal ak yu ci aju est-ce que tey tànneef gi ñeel député yi waruñu koo xoolaat. xam fal ko nga xam ne dana dañ naan dafa yore baatu askan wi te wa day euh, war naa doon loo xam ni lu sell lool foofu nag dafa am foo xam ne fii lay taxawee dañuy wax li nga xam ne moom mooy liste national liste nationale moom mooy raw gàddu bi du mooy raw gàddu bi waaw. Uh, tëgg nañ ñu ni téeméer ak juróom benn fukki député la réew mi war a am wala ca jamono juróom-ñett fukk wala juróom-ñeent fukki député la réew mi war a war a mën a am ñu ne dinañu jël ñeen fukk ak juróom yoo nga xam ni ñoom ñooy nekk ci liste nationale bi damay joxe xayma noonu rek de wala dinañ jël juróom-ñett fukk yoo xam ni ñoom ñooy nekk ci liste nationale ba bu ñu defee li nga xam ne moom mooy wote ci gox goxaan yi ñu ni parti sangam am na nangam kon gàddu na juróom-ñett fukk yi ñu ne kon parti boobu moom moo ko moom looloo tax ñu naan am na majorité ñu daal di demaat nag ci yeneen li nga xam ne moom mooy gox yi ñu ni ah diw sangam day moo jiitu ci gox sangam diw sangam bokk parti sangam moo jiite gox sangam diw sangam et cetera xam nga ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci la nga xam ne moom mooy list majoritaire booba dañuy daal di xool ne kat moo ma bindoon ci list bi te dañ naan président de la république moom moo joxoñoon ne moo def investiture bi moo def investiture bi ñooña nga xam ne foofa lañ foofa lañ leen fale seen gët yëpp dañ koy daal di teg ci ki nga xam ne moom mooy président de la république parce que dañ naan yàlla ak diw yàlla ak diw te yàlla ak diw boo ca te diwlumu la sant moom ngay daal di def moo tax gis nañ ko ci li nga xam ne moom mooy assemblée nationale yenn saa yi nga dégg ñu ne loi sangam day teg nañ ko ñu ne ah loolu du am benn problème day jàll bu fekkee sax tëgginu loi ba ñaaw na day indi li nga mën naa indi li nga xam ne moom mooy jafe-jafe réew mi dès lors que ku ku loi bët fa mu bëgg ngay xool ñooñu nga xam ne ñoom ñoo représenté li nga xam ne moom mooy majorité bi ci assemblée nationale coow li lay bari rek lu waaye loi ba day mujj jàll. ñu jàpp nag. loola waral sax yenn saa yi ñu leen di woowee majorité mécanique. muy baat bu jub parce que ca noom ñoom la ñu jàppee ak la nga xam ñoom la ñu gisee ak la ñu dund sax bu ñu nee nii fii lañuy jaar nga génn ca euh, majorité mécanique booba yëkkati sabaat ñu indi la li nga xam ne moom mooy jafe-jafe. Euh, fàttaliku bi gën a gàtt rek euh, boo tuddee Moustapha Cissé Lo ci Macky Sall mii nga xam ne moom mooy président de la république bañ ko bëggee indi li nga xam ne moom mooy jafe-jafe nga jël ku mel ni Baye Ndiaye ci Moustapha Cissé ci ci ci Macky Sall bañ ko bëggee jël indi jafe-jafe assemblée nationale ñoom dañ booba cee parti démocratique sénégalais la ñu bokkoon waaye bañu taxawee ne loola duñu ci ànd dàq lañ leen daal di def ci la nga xam ne moom mooy assemblée nationale dàq leen ci la nga xam ne moom mooy seen parti histoire bi gën a gàtt rek bi gë bi gën bi ñu gën a mën a fàttaliku ci réew mi moom laa lay moom la moom laa lay tegal ci fi nga xam ne suma xel fa la ñëwee. Mm-hmm. kon loolu dafa doon loo xam ne lu doy waar la lu ñaaw la député bi war naa mën a yëkkati kàddoom wax ne gisewuma ko nii mm-hmm. te dara du ko ca fekk. ndax bu fekkee askan kese moom moo ko tax di wax moo ko tax di jëf moo ko tax di jokk di euh, di dox fa nga xam ne fa la teg la nga xam ne moom mooy gëtëm dañ ko ko war a mën a taaralal ci li nga xam ne moom mooy dëggam ak li nga xam ne moom mooy gis-gisam hmm. waxu muy li nga xam ne moom mooy bëgg bëgg parce que moom bëgg-bëggam day jeex ci li nga xam ne moom mooy bëgg-bëggu askan wi hmm. foofu la ñu séntu li nga xam ne moom mooy ànd hmm. waaye bu fekkee dañ koo bëgg a ci kaw nga xam ni euh, day doon statut ba nga xam ne bu taxaw rek saabu bu leen bu leen neexee ñu ñëw yëkkati loxoom wala saa bu leen neexee ñu ñëw wàcc loxoom. Hmm. loolu da nga dootoo doon sax li nga xam ne moom mooy nit. Hmm. moo tax ci wàllu nga xam ne moom mooy nan lañ leen di fale. baat yaa ngi jóg tey di wax ne. tee ñoo dindi li xam ne moom liste majoritaire ku bëgg falu ku bëgg falu wax dëgg fa yàlla demal ca fa nga xam ne moom mooy sa gox bu ñu defee li nga xam ne moom mooy euh, xëccoo ya ba nga génn fa boo ñëwee di nga xam ne yow mi sa askan wala la fal waaye du parti loolu nag boo ko waxee dañ la naan waa mais kii jiite kon boo sàkkoon mën na am jafe-jafe fu mu toll de ndax su fekkee askan wi dañoo tànn ñoo nga xam ne ànduñoo ak ñoom moom ci wàllu wi nga xam ne moom mooy wàllu wàllu politique mm. mais kon du mën a doxal dara dëgg la. Mm. dëgg la ndax gis nañ réew mu mel ni Italie. Mm-hmm. ci wàllu bi nga xam ne moom mooy xëccooy député. Mm. tax na tey seen gouvernement fu mu toll mi nga am li nga xam ne moom mooy ay jafe-jafe. jafe-jafe. Mm-hmm. waaye waaye waaye waaye yaakaar naa ne xoolil ya. mën na wuute. doxalin ñu mën naa wuute déggin ñu mën naa wuute ndax nag euh, député bi moom àla ku leen waruñu ko def ko nga xam ni euh, ku ñuy jox ku ñuy ku ñuy joxoñ fu muy xool la àla ku leen waruñu ko def ko nga xam ni day dañ koy joxoñal fi nga xam ne foofa xool nan la ñuy tëggaate loolu nag ci fànn boobu yaakaar naa ni jar na li nga xam ne moom mooy ay xalaat ñu gëstuwaat ko ba daal li nga xam ne moom noonu lañ koy dund tey fi nga xam ne moom mooy suñu réew. Mhm. ñu seetaat ko. Mhm. ka ñu fal mu doon président de la de la république. Mhm. nañ ko trouver ay mécanismes yoo xam ne maanaam ay ay tëggin ak ay xalaat yoo xam ne moom dina mën a jiite ci li nga xam ne moom moo di ci réew mi te la ci wate ci ay loi parce que mënta ñàkk réew bu amul loi rek musiba fay daal di ne waaye la ñuy bote ci la nga xam ne moom mooy ay loi yi nga xam ne moom moo gën ci réew mi ñu mën ko ko encadré taxawe ko te du indi nga xam ne moom mooy fitna. Mhm. doyen tamit est-ce que du politisation bi moo ëpp lool ca assemblée ndax sànq yaa ngi koy junj ki ñu fal day jàpp ne dañu ko abali bët. Euh, ka ko abal bët fa mu bëgg mu xool fa lay xool ndax kon bu doxalee neneen du di ay sanction da ko caa mën a fekk wala yeneen i mbir yoo xam ne ay gàggal la ci wàllu politique yoo xam ni mën na koo dal ci assemblée nationale ba fekk ne xëy na moom askan wi la doon taxawu ndax du politique bi kon moo fa ëpp doole lool euh, taxawaay yi nga xam ne moom la ñu waroon am euh, muy représenter peuple bi. Euh, soxna si assemblée nationale. boo roccee li nga xam ne moom mooy siiru politique presque dara du fa des mu politique loolu moom foog mu politique waaye foog it ñu am ay député yoo nga xam ni dañoo am fit dañoo am surtout xam-xam parce que am fit te amoo xam-xam musibal xam-xam te amoo fit it jërna seetaat hmm. donc moo tax ma ni mbir mi dafa jaar li nga xam ne moom mooy tëggin xam nga euh, am na ay jataay yoo xam ne euh, ay góor buñ bu toogee daje fa ñu ne lii de moo gën ci askan wi sa xel sa dafay daw ba nga ni lii de moo gën ci askan wi waaye doone yàcc rek parce que fukk nee nañ lii moo gën ci askan wi rek nga dikk ne man maay fukk ak benn ba maay fukk ak ñaar ba maay fukk ak ba et cetera et cetera ba mu mat ko alors que xëy na ñi nga xam ne ñoom ñoo wax ne lii moo gën ci askan wi la ñu tëgg baaxul hmm. ñooñu la tëgg bu baaxul yow doon nga ko xam ni sax mosuloo bokk ci ko ñi nga xam ne dañuy xalaat wala sa yàlla mayu la nga mën a toll ci li nga xam ne moom mooy loolu. Hmm. te doo dem di laaj ci li nga xam ne moom moo jëm ci fànn boobu. Hmm. parce que nag am na loo xam ne buñ ko xësee ba yëkkati di teg wax dëgg fa yàlla magum jëm yore li nga xam ne moom mooy ay responsabilité ba mu mat mm-hmm. ñu jox la ko nga ñëw toog ne léegi mm-hmm. waaw ñu ne lii baaxul nga ne lii baax na parce que am na loo xam ne buñ ko yëkkatee ñii dañ naan lii baaxul ñii ne lii baax na député boo nga xam ne danga bokk ci majorité yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nokk ci opposition bi ne ah majorité bi lii ngeen indi lii baaxul mais c'est pas parce que dama nekk ci majorité ba rek que bu fekkee li nga xam ne opposition bi wax na ko ci ne baaxul dama koy dàq. Hmm. war naa mën a fekki loola nga xam ne moom la opposition bi wax. loolu day bariwul de eh, defal ndànk rek ma ñëw foo laa jëm loola boo gisee ko ko def ñu ne kii dafa xaru. ma dellu si yi si ñoom Moustapha Cissé Lo ñoom seen jamono. ñu ne kii xaru na. Mm-hmm. te pourtant da ngaa nekk ci li nga xam ne moom mooy dëgg. Mm-hmm. dëgg non pas pour yow. waaye dëgg pour sa réew. te dëgg pour sa réew nag jar na ñu tër la. dëgg pour sa réew moom jar na ñu tër la. waaw wala bokk nga te ki li nga xam ne moom mooy sa ndombo ne déet man mënatuma cee ànd. Mm-hmm. waaw wala nga nga xam ne moom mooy parti ba bu fekkee foofa lañ la bëgg a bëgg a gundu hmm. ndax lu taxoon nga uti li nga xam ne moom mooy ndomboog député ndax da ngaa bëggoon rek am oto am li nga xam ne moom mooy am essence am passeport ak yeneen ak yeneen déedéet dama yaakaar ne la taxoon nga def ko mooy danga ngaa ne sa réew mi ngi toll foo nga xam ni am nga mën nga koo amal njariñ kon soo ko mboree mën a amal njariñ ci li nga xam ne moom moo jëm ci li nga xam ne moom mooy sa taxawaay taxawaayu dëgg taxawaayu jullit taxawaayu fulla taxawaayu fayda su ma nee jullit du ma ne rek ki nga xam ne moom mooy euh, ci lislaam lañ ko togg tëgge wala ci catholique waaw no foi moo tax may wax dafa am loo xam ne moom nga gëm mm-hmm. waaw foi boobu mooy li nga xam ne moom mooy war a gunge ki nga xam ne moom mooy nit ki surtout muy ki nga xam ne moom mooy député bi ba du mës wor li nga xam ne moom mooy réew doyen tey lan moo xew ba asamble bi mel ni mu mel wala nii la ma sa demee xuloo yi xeexoo yi waxante yu ñaaw yi Euh, loola yëpp ñu jéggi ko léegi nag dem ba ci ay trafic euh, passeport diplomatique yi moo fi lëmbee xëy na jamono yi ñu toll waaye am na yeneen i mbir yu ko jiitu yoo xam ni yu askan wi rafetluwul la dem nag ba ñàkk wekk dugg euh, ci diggante député yi ak askan wi lan moo indi jafe-jafe bi ñuy dund tey ak assemblée nationale ci sa xalaat en tant qu'analyste politique également. dafa am baat boo xam ne tubaab daf koy faral di génne les bas instincts xam nga euh, dañuy wax ne li sori doomu aadama ak nit ak ak rabu àll hmm. euh, xel la kese xel xel mu ñu tàggat nag ba moom mooy baat bi nga xam ne moom moo am solo euh, am na loo xam ne soxna si hmm. boo ko eh, jàngul doo ko tari dëgg su fekkee damay jël rek ki nga xam ni demul sax école waaye gox ba mu ne màgg na ci la nga xam ne moom mooy penc mi di jege ñi nga xam ne ñoom ñooy mag ñi la muy jëlee ci la nga xam ne moom mooy dàtt ga pour ma dem Saalum la muy jëlee ca fa nga xam ne moom mooy dàtt ga mooy jikko yi nga xam ne moom ñoom la ko mag ñi woon te mag ñi dañu séntu ñu seen jikko dafay ànd ak li nga xam ne moom mooy yar day ànd li nga xam ne moom mooy teggin day ànd li nga xam ne moom mooy dëggu day ànd ak li nga xam ne moom mooy gëm sa bopp day ànd ak li nga xam ne moom mooy fit ma dugg nag ci biir kër gi xale bi nga xam ne su fekkee day yëkkati kaddu boo nga xam ne jubul bàyyi ba toj nop ne ko déet bu ma ko déggati wala yaay ji ne ko yare wuñ la lii kenn xamul lii ci li nga xam ne moom mooy suñu kër kooku gunge nañ ko ci li nga xam ne moom mooy nekk nam nekk nañ gunge ko ci li nga xam ne moom mooy dundam école bi mën naa yokk lu aadama waaye damay yàgg dama damay wax ni nga xam ne moom mooy suñu laytaay dëgg mm-hmm. mooy sunu yaru cosaan yar boo nga xam ne nag wax dëgg fa yàlla dañ lay yar ngir nga doon nit kese alalu jàmbur du ma jege. Hmm. alalu jàmbur du ma lal. jabari jàmbur du ma jege. jabari jàmbur du ma lal. Euh, euh, yu mel noonu dina damay xam sama bopp. Hmm. waaw damay xam suma bopp. damay doon sama buuru bopp. Hmm. sama buuru bopp mooy yaru naa tegginu naa jub naa gis nga ko fal fu mu mën a ne. dina ci indi li nga xam ne moom mooy gëddëm dina ci indi li nga xam ne moom mooy nekkinam ak taxawaayam. Mhm. foo ko mën a dugal foo ko mën a dugal doo gis lu ñaaw ci moom. Mhm. biir assemblée nationale tey ràññee nañu ràññee na eh, eh, ŋàññee nañu. li nga xam ne moom mooy nekkinu assemblée ba. Mhm. ndax ñett ñeent juróom juróom-ñaari nit fukki nit ñu ngi wane ay jikko yu xam ni kenn xamul lan la. askan wa loolu rek la ñu téye. te wallahi al am na ca biir ñoo nga xam ni. tey yar nañu wala yar nañ leen. Hmm. ñu mën a nekk ci ñoo nga xam ni ay royukaay la ñuy doon. ci lépp. ñu jub di jubal waaye ah. maanaam ñu jub di jubal. ñuy jub di jubal. waaye fukk yu bon yi moom moo nekk ci biir li nga xam ne moom mooy paña bi te moom moom mooy euh, euh, tax paña bi doon loo xam ne day sànkar. Hmm. alaakulaalin nag. bu fekkoon ni dafa am ay daan yu wér yoo nga xam ni ca njëlbeen booy teg sa tànk buntu assemblée nationale ñu ne ku def lii lii mooy daanu sa te amul laam-laame fu bu mu mën a jóge ku ko mën a def ku boo koy def rek daan bi egg si sa kaw am na jikko yoo xam ne duñ ko wane am na taxawaay moo xam ne duñ ko wane mm-hmm. waaye bu nasaxee ci wàllu mi nga xam ne moom mooy yorin ci wàllu nga xam ne moom mooy doxalin faw yenn saa nga gis ko nga xam ne hmm. da lay indil loo nga xam ne danga naan waaw lii lan la hmm. ndax ka fal député duñ ne léppam doy na hmm. waaye bu duggee bay dem ci li nga xam ne moom mooy ay trafic jëm ci wàllu nga xam ne moom mooy ay ay passeport wala trafic bo nga xam ne dafa jëm ci fraude ni dañ naan xaalis bu nga xam ne daf koy daf koy daf koy eh, daf koy eh, daf koy eh, daf waaw mm. waaw wala bokk ñaari ñaari ñaari ñaari ngonk ci diggu assemblée mm. ñu ne lu leen jotale ñu ni ñu ne ah moom kat waxuñu affaire immigré la ñuy xëccoo de pour pour nan lañ koy taxawee wala waxuñu nan la ñuy gën a jubale li nga xam ne moom mooy code code de la famille wala et cetera et cetera seeni jikko yi bopp kese lañu la ñu indi tàcc ba xeex ñëpp naan lii lan la askan wi teg bëtti loolu ne waaw suñu assemblée waaw suñu assemblée la ñuy wax parce que mënuñoo wax leneen lu dul suñu assemblée foofa la ñu war a mën a seetaat li nga xam ne moom mooy jikko yi kon benn soxna si mm-hmm. bu ñuy fal ñu seet ku ñuy fal kan la mm-hmm. il faut ñu seet ku ñuy fal kan la moo tax ma ni li jëm ci wàllu nga xam ne liste majoritaire bi mm-hmm. même bu fekkee liste majoritaire bi day noonu xam ne lu am la waay waay mu doon loo xam ne parce que nit ka alal moom moo ko jiital mhm. nañu seet la nga xam ne moom mooy jikkoom mhm. ke nam ak la nga xam ne moom mooy askan wa mhm. pour que ki nga xam ne moom moo koy jox place ci liste majoritaire bi dëgg-dëgg am fiche ba nga xam ne da permettre mu ne ah kii ne du ma mës xeex wala giraawaali ci li nga xam ne moom wala bokk euh, euh, jamono jiital ko mu ne boo ma joxee ñaari mi ma utal la ma wutal la passeport passeport boo nga xam ne du wér parce que mënul wér yooyu yaakaar naa ne ay xalaat la yoo xam ne war nañ koo mën a togg toggaat ko ñoral ko ba ñu am assemblée boo xam ne dañ naan ah lii de mucc na ayib. Hmm. du Mm-hmm. yaakaar naa ni mm-hmm, laal nga sànq fii metti euh, mooy ne euh, yu ci bari bu ñu ko waree daan duñu ko daan bu ñu waree jubbanti na mu waree it duñu ko def euh, dañuy faral di wax ne sax politiquement tant que nit ki mi ngi remplir contrat bi rek moom amul lépp lu mu def mën nañ koo nëpp nëppal te fii ñuy wax loolee xawee am dëgg mooy ni yëf yi melee ni lu yeex ci lu ñeel député yi ci mbirum passeport bi ndax gis nañ fi yeneen i député def yeneen mbir yoo xam ne sax dafa xaw personnel mais dañoo patam patam mais yëf yi levée immunitaire bi gaaw lool waaye euh, immunité parlementaire bi mais bii gis nañu yëf yi ni mu xawee yàgg xëy na bu dul woon yenn xibaar yi ci yenn euh, këru taskaay xibaar yi di fësal ñu di ko xam njortu nañu ne doon na mën a demee neneen est-ce que tey responsabilité bi mënuñu koo jël jëbbal ko nag ñi nga xam ne ñoo ŋànk yoon war a jiite war a euh, jubal war a itam woon nit ñi ci jub. mooy ci règlement intérieur wu assemblée nationale. Hmm. li ne fàng li ne weng. Hmm. du ma dogal bi jóge feneen. Hmm. am na loo nga xam ni député yi nekk biir assemblée nationale. ñoom seen wàllu bopp war nañu jël li nga xam ne moom mooy dogal. dogal laa wax. xam nga li mu am ci affaire passeport yi dañ ne ministre de la justice saisir na assemblée nationale. amee ministre de la justice euh, nu ko neex lay doxale bu ko neexee mu ne tey laa ko def bu ko neexee mu ne feeg ñaari weer bu ko neexee mu ne feeg weer wala feeg at mu doon lu xam ne day doon ñaxtu ci xolu li nga xam ne moom mooy askan wi parce que dañ naan mais lii lu ne weng la bu fekkoon ni euh, un lam lambda moo ko def jàpp nañ ko bu yàgg tëj nañ ko bu yàgg mm-hmm. lu tax ñuy def différence bu toll noonu ci diggante ki nga xam ne moom mooy député bi ak ki nga xam ne moom mooy sénégalais euh, euh, euh, citoyen lambda bi dañoo war a doon ñoo xam ne ñuy tolloo la ci wàllu wi nga xam ne moom mooy daan bu waree am wala boog buñ leen waree kañ député bi bu defee lu rafet da ngay daal di gis adduna yëpp koy wax mm-hmm. citoyen lambda bi la même chose mm-hmm. bu député bi nag bu tooñee it il faut seet nan lañ koy daane ci na mu gën a gaawee te bu fekkee justice daf ciy ñëw ñu ne assemblée nationale ci boppam nañu réviser li nga xam ne moom mooy règlement intérieur bi ba justement majorité mécanique boobu nga xam ne moom la ñuy wax ñu ne waaw ku def ci ñoom euh, député bu def te bokk ci li nga xam ne moom mooy euh, majorité euh, majorité bi ñooñu dañ lay aar déedéet parce que war na mën a am commission yoo xam ne ci biir assemblée nationale bu ñu dogalee bu ñu dogalee moo baatu magistrat ñoom ñooy tolloo député war naa mën a am gëdd boobu dañ koy encadré nag ci wàllu nga xam ne moom mooy taxawaay moo tax ma ni ay gëstu liggéey moom la ñu war a mën a def ci li jëm ci réformer li nga xam ne moom mooy en profondeur euh, l'Assemblée nationale li jëm ci wàllu nga xam ne moom règlement intérieur ñoo bàyyi muy wéy nii rafetul gënul baaxul hmm. day yàq li nga xam ne moom mooy jikkoy askan ndax bu fekkee kilifa dafa tooñ ñu ne ah waaw moom de euh, mais buñ toogee ñaari fan ñetti fan def def ko nga gis ñeneen ñoo nga xam ne dañuy daal jóg ci biir askan wi hmm. ne a ah, mais euh, euh, ñeneen nga koy def kay ñu nit war nañ ko def hmm. te du leen jikk day yàq li nga xam ne moom mooy réew mi kon foog ñu gëstuwaat li jëm ci bi nga xam ne moom mooy taxawaay bi. foog ñu gëstuwaat ko pour ñu am réew moo xam ne dañ naan réew mi de réew mu jub la réew mu sell lépp mënta jub. kenn mus koo gis ci àdduna am benn réew boo xam ne di nga ko fekk loolu. lii ngay fekk ci assemblée nationale la tey bu Sénégal waxuma ko pour ne damay nasaxal wala damay woyefal li nga xam ne moom la suñuy député de. mais di nga ko fekk ci yeneen i assemblée nationale. waaye du man bokkuma ceeg. du ma bokkuma ceeg bokkuma ceeg ko gën. ñun dañoo bëgg am assemblée nationale ba nga xam ne bu taaru la. Mhm. ba nga xam ne buñ ko fi tuddee tey dañ naan toog nañu ñaar fukki at toog nañ fanweeri at en tout cas toog nañ ab lim ba nga xam ne mais kenn déggatu ko kenn déggatu ko fi woon. parce que mhm. jikkoy doomu aadama yi moom kenn mun leen du fekkoon ne dañuy piqûre ni pour ñu am jikko ju baax. Mhm. kon piqûre nañu waa Sénégal bi yëpp pour ñu am jikko ju baax. mënta ne comme mënta ne nag il faut ñu wut li nga xam ne moom mooy ay pexe. mbir yu ni mel itam euh, doyen yenn saay mu dugal euh, coowal séparation des pouvoir ndax dañuy faral di wax ni assemblée bi xëy na nu nguur gi bëgg noonee lay doxalee te waroon naa mën a moom boppam ci yenn yi ñu leen di tuumaal itam yenn saay ne xëy na taxaw seetlu ak càmbar gi war a am ci ni euh, pouvoir exécutif bi di doxalee alalu askan wi amuñu ko ca ndax lii wala lee loole loonu ci mën a wax ci analyse politique ak journaliste bi nga doon séparation des ak ñàkk euh, am gi njeextal yi mu mën a am ci doxalinu institution yooyu. dafa yàgg ñu di ko wax ndax ñetti ponk la ñu yore fi mu toll nii ponk njiitu réew mi ci gëdd bi nga xam ne moom la am ci réew mi ponk bi assemblée nationale am. ci gëdd moom bi nga xam ne moom am ci réew mi ponk bi nga xam ne moom la justice bi muy magistrat yi ak ñi nekk ak ñoom am ci ni nga xam ne moom lañuy ñuy doxalee réew mi booy seet fii ñu toll nii tembe ci Sénégal dañ naan ponk bi ma njëkk tudd mooy ponk bi nga xam ne moom mooy bu président de la République dafa mel ni boobu rek am dayo dayoo rek ay dox ndax gis nañu assemblée nationale coow li nga xam ne moom moo ko topp loo wax ñu ne pale ba lu mu leen wax loolu la ñuy def justice bi loo wax ñu ne pale ba lu mu leen wax bari na ci magistrat yi moom la ñuy def ndax du ñëpp waaw mais surtout parce que ci biir justice moom dafa bari ay ay corps yoo nga xam ne ci ci tëril mais assemblée nationale moom majorité opposition ak li nga xam ne moom mooy les non alignés loolu moom ma fa nekk mhm. su ma juumul kon ci wàllu yi nga xam ne moom mooy doxalin ki nga xam ne moom lañuy ñuy jëkk tudd muy pale ba ndax du ma wax président de la république mhm. dama naan pale ba xam nga euh, yorin moo doy waar mais du ma xóot ci loolu du ma xóot ndax am na am na ñoo xam ne ñu nga ci biir pale ba ñoo yëkkati yenn saa yi seeni téléphone rek woote mhm. def leen di def leen di def leen di def leen di as ña xam ne ñoom ñooy député majorité bi ñoom dootuñu dégg leneen <coughs> ca loolu rek la ñuy daal di sóobu jeex na loolu yeneen waxtaan la yoo xam ne xëy na nañ ko amaat yeneen jamono mhm. mais li am solo mooy fal gi daal moom askan wi moom a fal man député bi mhm. président de la république askan wi moom moo ko fal kon su ma ëppee dayo dama naan am naa dogal ci moom. ñoo bokk ñu ñu fal. am naa dogal ci moom lay wax waxuma hmm. ñoo bokk ñu ñu fal dama naan man député bi am naa dogal ci moom. Hmm. parce que am na noo xam ne bu ma ko taxawee même bu fekkee dañ ma dàq assemblée dina indi coow loo nga xam ni moom faw askan wi xo eh, eh, joxoñ ko. Hmm. nekkoon kat mbir mi kii la te loola day yàqal ki nga xam ne moom moo yore. saa bu ne leen nekkate kon eh, diw mi moom moo koy deflu kooka am na loo xam ne day daal di wàññeeku ci moom tëralin nag kon waxoon naa ko sànq il faut séparation de pouvoir boobu nga xam ne wax bis nga Ablaye Wade dafa mos a président Ablaye Wade mm-hmm. dafa mos a wax lu am solo ci mm-hmm. ba ñu ko waxee affaire magistrat yi mun eh, eh, lu mu waxoon ku bëggul a tekki boppam noo koy tekkee. Hmm. mooy indépendance de la justice. ay indépendance de la justice. Mm-hmm. ku bëgg la tekki tekki boppam. parce que dañu am dañu am prérogative yëpp. ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñoom ñooy magistrat waaye am na ci ñoo nga xam ne ñoom de la ñu gëm moom mooy naa déglu. pour neex kii ah du ma jël du ma jël du ma jël benn dogal. Mm. dañuy yore dogal bi seen kanam. waaw ñu tegal leen ko ñu war koo jël. Mm. ñu ne man duma jël benn dogal. kon ñooy yeew seen bopp yenn saay xam nga loolu ñoo ñoo ñooy yeew seen bopp. Mm-hmm. li jëm ci wàll bi nga xam ne moom mooy député yi c'est plus complexe d'une certaine manière. Mm-hmm. c'est plus complexe parce que comme du sa baat yow kenn moom mooy dogal waaye ci baatu li nga xam ne moom mooy groupe mais dinaa fexe ba ci li nga xam ne moom mooy groupe bi nga xam ne moom laa bokk mm-hmm. sama baatu dëgg di doon loo xam sama baatu dëgg. Mhm. di doon lu nga xam ne dafay jib. Mhm. may def li nga xam ne moom mooy ay proposition mhm. maanaam bu ñu defoon lii bu ñu defoon lii bu ñu defoon lii loolu dafay doon cëru ki nga xam ne moom mooy député. am na foo nga xam ne nag bu ma fa yeggee wax dëgg fa yàlla ndombo dootul tax ma ma di toog te loolu it dafa doon ci li nga xam ne moom mooy ngor ci doomu aadama fal nañ ma ci li nga xam ne moom mooy député du askan bee ma ko jox. man ràññee naa ko. dugg naa gis naa loo xam ne lii gënul ma dellu ca la nga xam ne moom mooy ca ña nga xam ne ñoom ñoo ma faloon. Hmm. ne leen man kat du alal du ndombo moo ma yóbbu woon. Hmm. seen baat bi taxawee leen moo ma fata tax a taxaw. Hmm. comme gis naa nag xam ne wax dëgg fa yàlla gënul banaa. tànn leen keneen mu demal leen foofa. bis bu yëfi soppeekoo. Hmm. bu ngeen ma joxaatee ma jéem a seet nan lay defee waaye tey comme bu ma yëkkatee suma baat kenn du ma dégg ci la nga xam ne moom mooy xeex ba ma leen war a xeexal ndax li ma leen di xeexal lii lii lii lii ak lii la. ful la jooju laa gisagul benn député am ko ci li nga xam ne moom mooy réew mi. Mm. ci wàllu nga xam ne moom mooy wàllu taxawaay te dañ cee war a a yegg. ndax ngor moo tax mm-hmm. nga li ma lay wax nii xam naa ne yaa ma ko gën a xam ñu ci bari politique bi tey métier la ñu ko def ba tax na buñ la ci joxee post danga nga mooy ba mu dëgër ni tekki naa ñu ci bari tey buñ bàyyee politique amuñu lu ñu def ñenn ci yéen borom xam-xam yi ci wàllu politique sa jàpp nañu ne xëy na loolaa waral transhumance bi ndax faaw ñu am ci ci politique rek la ñu ko mën a am kon kiy séddale moom wala kiy fale faw ñu itam euh, wéy wéy ci ay waawam est-ce que jàppoon itam loolu bokk na ci li nga xam ni moo sooke jafe-jafe yi ñuy dund tey. gis nga bu ñu waxee nit dañ naan nit ki mat Fatou. mënuñoo hmm. jox ku nekk ndombo. mënul ne. Hmm. wala boog gënul. moo tax ma ni bu ñuy fal ci fi nga xam ne moom mooy ab gox ñu bàyyi waa gox ba fal waa gox ba bu ñu falee dinañu mën a am yaakaar ndax nag àdduna gudd na gudd tànk goo xam ni nit ki la gën a won njug tey mhm. boo ko xësee ba jox li nga xam ne moom mooy ndombeew mhm. ca suba sa dina la indil coppeeku goo xam ni mhm. mooy raw li nga xam ne moom mooy kàkkatar. est-ce que tam bu ñuy def ay coppite sax mënuñu ci boole justement pouvoir de sanctionner euh, boobu nga xam ne askan wi mun na ko am ci boo doxee nu ko neexul. xëy na mu am sañ-sañu mën a soppi wala am nu mu doxalee ak yow. ba tey ba tey xam nga li ñuy wax les assemblées populaires am na ay réew yoo nga xam ne am na fa. waaw li ñuy wax les assemblées populaires. ki ñu yebal kat ci bërëb sàngam wax dëgg fa yàlla nañu leen pencoo teggi ko fa. te askan wi am sañ-sañu mën koo def mhm. ndax bu fekkee dañ ne ci gox goxaat yi la ñuy ko mhm. ki ma amalul njariñ suma gox bu ñu demee diir boo nga xam ne natt nañu ci li nga xam ne moom mooy njariñam wala loo nga xam ne njariñam ñàkk euh, feeñu fa mhm. ñu seet nan la ñuy doxalee ak moom ñu mën a def ay changement comme ci football bu joueur bi demee ba gisatul dañ koy génne dugal keneen moo tax moo tax ma ni xalaat yi. Mm. faaw ñu lawal ko. Mm. il faut moo tax ma ne li jëm ci réglement intérieur u assemblée ci boppam. Mm-hmm. il faut ñu doon loo xam ne luñ koy lawal. Mm-hmm. ba même li jëm ci wàllu wi nga xam ne moom mooy suñu constitution. Mm-hmm. parce que am na ca foo nga xam ne du doon ca assemblée nationale kese lañ koy lañ koy mën a defee. waaye ci li nga xam ne moom mooy euh, constitution bi. boo ñëwee cib gox gox ba di téeméeri nit ñu ne juróom-ñeent fukk ak juróomi nit ne bu ñu dajaloo jël li nga xam ne moom mooy seen baat. Hmm. war nañ koo mën a dawal waaw. Hmm. xam nga à la à par exemple d'une ville ñu ne da ñu ne dañuy def ko référendum. Hmm. ci li nga xam ne moom moo jëm ci ki député yi nga xam ne moom lañu ñu fal. ñu ne tous les deux ans dinañ leen nat xayma leen ñu def ko li nga xam ne moom mooy référendum. liggéey mën na faa doon loo xam ne lu feeñ la yooyu ci ay xalaat la yoo nga xam ne hmm. war nañ koo mën a dugal ci li nga xam ne moom mooy suñu démocratie parce que hmm. dañoo bëgg suñu démocratie yokku suñuy député ñoom ñooñu ŋànkal li nga xam ne moom mooy suñu taxawaayu démocratie hmm. dañ ci am cër boo nga xam ne cër bu rëy la su fekkee nag ñoom nekk ñu lu dul di nasaxal li nga xam ne moom mooy démocratie bi waaye waaye askan wi na am taxawaay boo xam ne war na koo mën a seet moo tax ma yaakaar na ci fànn boobu bu ñu ubbee li nga xam ne moom mooy nattuwaay yi ak li nga xam ne moom mooy xalaatukaay yi. Mm-hmm. ci li ci ci li nga xam ne moom mooy fànn boobu. Mm-hmm. war nañ cee mën a bàyyi xel bu baax a baax. Mm-hmm. doyen xëy na fi ñuy jeexalee mooy tey gannaaw euh, li am am na te yeggaguñu ci coppite yi nga xam ne xëy na moom nga fi proposé muy euh, député yi di jóge ci gox yi askan yi di falal seen bopp directement am itam pouvoir changer bu fekkente ni député booba taxawaay boo mu jël méngoowul ak ñoom ña ko fal lañu ko sant tey ñi fi ne ak kilifa yi réew mi lan la ñu mën a def ba assemblée nationale askan wi joxaat ko gëddam mën koo wóolu ndax nag lu ñu mën a wax euh, ci suñu ay institution ni mu tëddee assemblée lu fi am solo la ndax mooy séddale budget mooy wote ay loi ak yeneen ak yeneen mbir yoo xam ne mënta ñàkk ci doxalinu réew mu mel ni suñu bos kon lan la ñu war a def ñoom député yi fi ne tey ak kilifa yi ba askan wi xëy na mën a amaat benn kóolute ñu mën a amaat itam gëdd gi nga xam ne mënta ñàkk ci diggante institution bi ak askan wi xam nga ñoom dañoo doonul ñoo nga xam ni ak député yi euh, dañ leen a utal seen ay kër wala ay néeg yoo nga xam ne dafa nekk ci kaw asamaan sa mm-hmm. ci biir askan wi la ñu dëkk ñoo ñu ne dëkkandoo kàddu yi nga xam ne moom lañuy ñuy yëkkati di wax ne suñu assemblée bi day nii mu doye waara ni ñuy xool ni war a xoolewaat li nga xam ne moom mooy taxawaayam ci seeni nopp lay jëkk a dugg bala moo dem feneen ndax bu fekkee presse bi tey am na taxawaay bi nga xam ne moom la ñuy ràññee bis bu ne nga gis ci tasukaayu xabaar yi moo xam ñiy bind moo xam télévision yi moo xam rajo yi moo tax xam internet yi euh, fu ci nekk li nga xam ne moom la ñuy yëkkati jëmee ci ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi li ñu yëkkati jëme ci assemblée bi kon wolof njaay def na bët bu rusul am na foo nga xam ne fa la xaar li nga xam ne moom mooy seen déggin ak li nga xam ne moom mooy seen taxawaay mm-hmm. mënuñu lu dul fi mu toll nii ne leen waay waay delloo leen njukkal li nga xam ne moom mooy seeni nawle parce que nag muy yow muy man muy keneen nawle député lañu mm-hmm. waaw delloo leen njukkal ñi nga xam ne ñoom ñooy seen i nawle. Hmm. bàyyi leen leen xel ci li nga xam ne moom mooy seen taxawaay bu leen leen gàcceel bu leen leen rusloo hmm. ndax jël nañ euh, euh, jël nañ waar woo nga xam ne ci mu toll nii euh, ci ndëgg sërëx rek la la yëf yi mën a mujjee. Hmm. na lool te ñaaw na lool. ci wàllu li nga xam ne moom mooy taxawaay. li tu li ñuy wax reprise en main. maanaam ñu bu ñu foqatewul yëf yi ci seen loxo yi. Mhm. wax ak ñoom ci wàllu bi nga xam ne moom mooy eh, nekkin. Mhm. man yaakaar naa ni war nañu mën a trouver ay bunt yoo nga xam ni ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi. Mhm. nit ñi yenn saa yi ñu def li nga xam ne xam nga foo dem tey am na eh, eh, assemblée de quartier. foo dem tey. am na tey li nga xam ne moom la ñuy wax assemblée de quartier. su fekkee assemblée de quartier yi nit ñi jël nañu conscience que ni. seen député bii kat moom la joxoñ hmm. ci ci mbir ñu fexe ba la nga xam ne moom mooy assemblée de quartier yi yenn saa yi nit ñi def délégation ñëw toog wax waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy député bi hmm. kilifa la ñu ne ko ñun kat dégg nañ nangam ak nangam di xew ci la nga xam ne moom mooy assemblée hmm. yooyee day lii yow tuddu nañ la ca wala boog dégguñu ci li nga xam ne moom mooy sa kàddu dañu bëggoon bu ñu sañoon dañ lay ñaan ngor dafa am na nga xam ne moom la ñuy waxee moom mu war a mën a dégg hmm. parce que coppite gi ñun ñoo ko mën a impulser hmm. ñun citoyens yi hmm. ñun ñoo leen di wax ni lii la ñu bëgg du du ñu def ndiiraan dem ca assemblée nationale loola du faj dara du faj dara waaye yaakaar naa ne assemblée de quartier yi man foofu lay xoolee nga xam ne moom mooy base bi waaw bu nit ñi defee li nga xam ne moom mooy seen taxawaay bi nga xam ne moom mooy bu mat bi parce di nga bari dina bari ay ay député yoo xam ne waxtu wi ma lay wax. Mm. nit ñaa nga niiraan seen kër. Mm. ñii yore seen i ordonnance ñii yore seen i di laaj dépense. Mm. ñii et cetera et cetera et cetera. waaw yenn situation yi sax looloo loolu leen leen dugal. dëgg ndax li ñuy yenu itam day bari. li ñuy yenu ni leen koy teg. leen koy teg waaw ñoom yenuwuñ ñoo leen dañ leen a yen. nit ñee leen koy yan. Mm-hmm. sama député la naa dem laaju ko paas. déedéet. sama député la naa dem laaj ko dépense sama député la naa naa dem laaj ko eh, eh, eh, lu ma fajo déedéet du noonu loolu ku ci dëkk boo sàkkanul nga keesu ke keesu assemblée nationale ga wala keesu Macky Sall ga sax buñ ko boolee jox <laughs> du tax mu doy. du doy dëgg la kon ci jikko ci ñu heureusement ba ñu egsee ci loolu faatu mhm. ci jikko yi ci ñu nit mhm. nanu xoolaat li nga xam ne moom la ñuy sëf ñi nga xam ne ñoom la jox li nga xam ne moom mooy ay ndomb tànk mhm. mën a mën a doon ànd ak ñoom ci li nga xam ne moom mooy ngor ba ba bu desul lu dul waxanteek ñoom dëgg ñu am ñu am sañ def ko waaw waaye dañuy am sañ-sañu dikk ne la dégg nañ la ci lii loolu la wax dëgg fa yàlla day yàq li nga xam ne moom mooy sunu sunu sunu dëkk ak day ñaawal li nga xam ne moom mooy sunu doxalin day nasaxal li nga xam ne moom mooy ponk réew mi bëggatuñ koo dégg ci yow goor goo ko wax bu siggee xol la dala la ah wax dëgg fa yàlla du ngeen ma ci dégg ci mm-hmm. ndax nag dañ lay naw la woo mm-hmm. mais bu fekkee nit ki dafa dikk jàkkaarloo ko yow wax ba pare nga ne ko waaye bu ma sonal waaye mm-hmm. dépense bi ma lay jox bis mu nekk fan nga yaakaar ne fa laa koy jëlee <laughs> leer na ah lu mu cay tegati loo kon moo tax ma ni. Mhm. oui assemblée national am na cër boo xam ni bu rëy la ci li nga xam ne tey moom mooy nasaxal li nga xam ne moom mooy ponk réew mi mhm. waaye ñun it suñuy jikko ñun citoyens yi. Mhm. ñoo nekk ci taxawaay yoo xam ni euh, euh, euh, bu bu nit ki defee loo xam ne lu ñaaw la. doo ñeme doo ñeme laa wax. dem di jàkkaarloog moom naan ko yaa def lii wala yaa def laa. dëgg la. kon responsabilité yi waaw responsabilité yi c'est partagé comme ni ñu koy waxee. Ah. jërëjëf doyen. maa ngi lay gërëm di la sant. ñu ngi lay gërëm bu baax a baax amoon naa mbégte lool euh, sekk ak yow waxtaan wi càmbar assemblée nationale tolluwaay wi tey jafe-jafe bi fu mu jugee ñu méngale ko nga woon démb waaye gis nañ ci responsabilité yu partagé comme ni nga ko waxee ci diggante député yi askan yi ak kilifa yi nga xam ni itam ñoom ñu la yàlla teg réew mi ci seen loxo ñu ngi lay gërëm yaakaar ne solution yi nu fi wax yépp dina am njariñ. Euh, teg daal mooy li nga xam ne moom moo koy taxawee. Mm-hmm. kuréel gu ñu mën a am bu fekkee ña fa ne dañoo askan wi. Mm-hmm. di leen seetaan ci li nga xam ne moom mooy seen ñàkk la googu. ndax foo amee sa soxla ne xaaral ma daw ci député ba xaaral ma daw ci ministre ba. Mm-hmm. xaaral ma daw seeti eh, keneen ko xam ne am na ndombo. yëf yi a sotti de. waaw